ñoo ngi leen di jaajëfal ci ànd bi ak Buzz 221 HD ni ñu koy defee saa su rek euh, di leen indil ay xibaar la ca gën a fës ñu daal di ñëw ci kàddu yi kii nga xam ne moom moo di marañas nekk itam sëñ boo xam ne ku ñu xam la lool ci réew mi di réewum Sénégal gëj nañu ko gis euh, ci li nga xam ne nag moom moo di réseau yi la ko waral nag ni kiy démb daal di nay génn xamal ko li nga xam ne nag moom di askanu Sénégal waaye itam xamal ko li nga xam ne nag moom moo di njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak ki nga xam ne moom moo di premier ministre bu Sénégal Ousmane Sonko moom Mara Niass ma ngi leen diwoo di xamal ne nag eh, trois mois yi nga xam ne nag ci la ñu daal di génn ay jafe-jafe rek la ci daal di dund mu di ay nit yoo xam ne dañu koy topp bëgg jël li nga xam ne nag moom moo di bakkanam kon nag moom jamono ji ma ngay alerte yi nga xam ne nag moom moo di police bu Sénégal rawatina li nga xam ne nag moom moo di sécurité yi nga xam ne Euh, ñoo nekk ci réew mi di réewum Sénégal kon nag moom Mara jamono ji li tax ñu gëj koo gis du leen lu dul ay jafe-jafe yoo xam ne nag mi ngi koy daal di dund ci ay mbiram ay nit yoo xam ne dañu koy topp bëgg ko faagaagal waaye itam xam le ne dem na ba nga xam ne ci ak lekkam sax dañu ci daal di def ay yëf yoo xam ne moom Mara daf koy daal di yëg waaye itam eh, di xam le ne dana daal di génn fi ak fan def li nga xam ne nag moom moo di ab point de presse bu ko defee xam wax wax li nga xam na nag moom moo di sénégalais yi jafe-jafe yi nga xam ne mi ngi koy daal di dund ak nit ñi nga xam ne ñu ngi koy daal di topp bëgg faat li nga xam ne nag moom moo di bakkanam bu boobaa dana daal di tudd li nga xam ne nag moom moo di seeni i tur bu ñu bàyyiwut li nga xam ne nag jamono ji ñu ngi koy mbébét jëmee ko ci moom mu di bëgg a jël li nga xam ne moom moo di bakkanam kon nag mën nañoo jàpp ne li tax ñu gëj a gis ki nga xam ne moom moo di maarañas ci réseau yi loole moo tax euh, mu gëj nekk ci li nga xam ne nag moom moo di internet bi di wax li nga xam ne moom lay daal di gis ci réew mi kon nag jafe-jafe lay daal di dund jamono ji ba tax na mi ngi àllalte li nga xam ne moom moo di police bu Sénégal